Nous avons eu à faire des activités pendant l'événement euh, donc pour répondre en fait à l'appel donc du président Sonko. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de clôturer cette vague. Mais aussi également, vous avez dit tout à l'heure que donc euh, le président avait lancé aujourd'hui cette journée et qu'elle soit en fait une journée de massification. Donc également, nous avons répondu à cet appel-là et nous avons sillonné euh, les différents artères donc, de, de la commune pour participer à cette massification. Dans la commune, euh, nous, avons pas, non pas, nous avons constaté une absence notoire des infrastructures de base, l'accès aux services sociaux. Euh, il n'y en a pas de route. Aujourd'hui, par exemple, je prends l'état de Kounoun. S'il y a l'hivernance, donc euh, le village est coupé du monde, personne ne sort. donc il n'y en a pas d'assainissement, la varie n'en parle pas. Nous avons une absence, une, absence totale donc, du sanitaire dans, la, dans la commune. Et donc, compte tenu de tous ces problèmes-là, donc nous, dans un premier temps, je pense que nous allons euh, faire un état des lieux euh, pour, d'abord avoir une, situation exhaustive donc, de, de, l'existant avant donc, de nous prononcer sur en fait, notre projet. Euh, ce projet-là, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, donc on va l'occasion nous, donnera, on va donc avoir l'occasion de pouvoir le présenter. Mmh. Euh, donc nous, nous, restons en fait donc, soumis en fait à, aux instructions du parti. Mhm. Dès que donc, le parti donne le tempo, nous, partageons avec vous le programme. Même ses parents aujourd'hui en fait donc, euh, critiquent euh, sa, gestion je prends tout simplement l'apport que, la centrale Kounoun fait dans le budget donc, du maire, c'est 133 millions par an. Aujourd'hui, si vous multipliez 133 millions par an, euh, pendant 10 ans, c'est 1 milliard. Vous, conviendrez avec moi, qu'est-ce que, euh, mm, le, maire a réalisé durant son magistère qui, approche en fait un, montant de 500 millions Il n'y en a pas. Il y a vraiment une absence notoire donc, des infrastructures de base. Ne serait-ce que ça, c'est un échec total. L'objectif de PASSIF, c'est le programme de la coalition. Et donc, euh, je vous ai dit tout à l'heure que donc, nous sommes en fait dans la phase de massification. Donc le moment viendra, nous allons partager avec notre programme. C'est une initiative noble que le président a donnée. Encore une fois, ça montre en fait sa vision et la maîtrise en fait des problèmes du pays. Et donc c'est l'occasion de dire qu'on doit euh, en fait euh, euh, retourner en fait à la terre parce qu'il n'y a que ça qui, puisse en fait nous permettre d'assurer le développement. Le développement du Sénégal ne, ne peut pas venir en fait de l'extérieur, mm. mais doit venir par nous. C'est les, les, Sénégalais qui doivent porter en fait ce développement-là. Mm. Et on doit commencer par l'agriculture. Mm. Donc c'est l'élément fondamental euh, pour pouvoir donc on doit maîtriser l'agriculture avant de faire quoi que ce soit. waaye gox bi commune de Bambilor moom dama naa commune du gën Je suis Sénégal te commune bi gën a ëpp pour mën a avancer ndax fii dafa de lépp lépp dafay amoon ko de àll bi xam ne ay de yi ñu doon béyaloon ci de agricole comme ni ñu ku xamoon àll bi xam ne ay pulaay ñoo fi nekkoon ku xamoon àll bi xam ne ay mango ñoo fi nekkoon xamoon àll bi xam ne ay maraîchage moo fi nekkoon hmm. tey lépp def nañ ko ay dëkkuwaay hmm. booy defee dëkkuwaay da ngaa war a programmer ñiy dëkk buñ xëy fi ñu daane seen doole mais hmm. programme wuñ loolu ëllëg dañu am problème bi sérieux li ñu koy mooy suuf si yëpp ko jaay ko ci may ma booy ngénte ñu may la terrain booy dëj ñu may la terrain booy takk ñu may la terrain kon ku la neex ñu ànd ñu may la terrain suuf si dañ koy dogal dogatee moo tax ki fi nekk damay faral di wax ne xam na may may xamul liggéey kon lim jàng ba mokkal ko ñëpp xam ko ci moom mooy may rek te ki ànd ak moom lay may waaw te ki ànd ak moom te war naa xam ba ëllëg na moom day demaat gannaaw kon Bambilor sens bu rëy mu ngi fi woon mais perte nañ ko li ñëwaat dañ ko pour gëm-gëm ñun démb Bambilor fi lañ fekk ku am ci dëkk bi 15 ans xam nga dëkk bi kon kenn du ko fi doon jaay am na wala amut dañ ko doon may da nga doon voyage ñu lay may mango ko yóbbu kenn du ko fi doon jënd dañ la koy may léegi tamit dañ koy jaay te amatul fi pourtant section boobu dong moo waral loolu maanaam Pastef liggéeyam ci Sénégal li gëm ci àddina bi lépp mooy lépp lu bon mooy jëm koy joyanti bàyyi ci sawewu tànk am de loolu la ñuy wax kon fi ñu gën jege mooy Bambilor pour ñu jubante Sénégal moo tax phase locale yi parce que mënu ci ñàkk a dam pour nga defar Sénégal commencé sa gox defar ko te d'abord commencé foofu jàkk kon mairie Bambilor ku ne xam na ne tey ay a ngi sax ñu am délibération mënuñu seen délibération ku ko bëgg a jot suuf ngay jaarat pour mën a jot li nga bëgg a jot te li ko waral mooy lan section kon ku ne xam ne ni bindoo baaxul tey pour nga am fi dara rek defar li nga bëgg def ay relation yi nga am ci surtout dëkkoo ak nit pour mën koo doxal kon Bambilor ku ne xam ne ni muy doxee baaxul mm-hmm. parce que taxaw na pour jubante loolu ak ñi mu àndal mm-hmm. pour sensibiliser fi nekk nga xam ne baaxul mm-hmm. changé boobu nag ci wax lay am ci jëf lay am ak ay démarches yu yaatu yoo xam ci nañ koy defee quoi di doon paaka du jóg jaas du jóg fetal du jóg attaqué nañu seen kër du jóg mais ci xel mu rafet lañ koy liggéey incha allah déedéet maire bi ñi mu àndal sax ñu ngi ko commencé xeex première action maire yéen a ngi koy dégg tay ci réseaux yi yéen a ngi koy recevoir fu nekk di ko dégg anam yéen waa Sen TV yéen a may dégg yéen gars yi ñu koy dégg parce que moo waral loolu mooy bu ñu demee première action ne taxaw di révolté wu di génn di wax ci rajo ak télévision koy dégg kon ñu xam ne Bambilor garaaw na ko wax